mbokki internet daleen ak jàmm seen chaîne youtube Buzz Actu 221 ab xibaar di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ab triste nouvelle nekk génnub àdduna kii di Mohamed Boun Abdallah Dionne ancien premier ministre du Sénégal ci nguuru ba moom Mohamed Boun Abdallah Dionne ni ki tey ji lee kon dañoo xam ne ni rek kon dañ nay génn àdduna gannaaw feebar boo xamante ni daal di ko tëral rawatina nag ci campagne électorale mi ci nag noonu moom mi lee nekkoon na candidat l'élection présidentielle du 24 mars 2024 waaye moom Mohamed Boun Abdallah Dionne kenn gisu ko woon ci boobule campagne ci noonu sax ci jour élection présidentielle yi lee lañ ko doon tàggee ñu xam ne ni sa dañ lay génn àdduna ba taxoon nag waa cellule de communication Dionne président ñu daal di woon génn rek weddi loolee ñu xam ne ni rek donte jamono jile rek dañ lay feebar ba rek ñu daal di koy rawale foofee ci diwaanu France waaye nag génnul àdduna tey jile nag gannaaw xibaar yoo xamante koy fésal ñu xam ne ni rek kon moom Mohamed Boun Abdallah Dionne ay atam tolloo ci juróom benn fukki ak ñeent moom mi rek na génn àdduna foofe nag ca diwaanu France nekk nit koo xamante ni daal nañ koy marqué lool ci languma politique bi rawatina nag ci postam premier ministre bi nga xamante ni kon nekkoon na ko ci nguuru Macky Sall laata muy marqué carrière ci candidature am à l' élection présidentielle 2024 yi lee moom Mohamed Boun Abdallah Dionne jile foofee ci Paris waa groupe Buzz Actu 221 di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te xare ko àjjana fi daw ci noonee nag gannaaw bi nga xamante ni moom Mohamed Boun Abdallah Dionne dañ ne génn àdduna ex président de la République di Macky Sall moom lekkoon daal di publier Facebook di ko jaale ay mbokkam way tamit ci noonee di saluer sa mémoire daal di xamle ni Sénégal dañ nay perte ab cadre de grande valeur nekkoon ab compagnon de longue date ci noonee moom Macky présenté ay condoléances am ci ma si di kati ak ay mbokkam moom président Sall di ñaanal moom Mohamed Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne kon moo fi bàyyeekoo ndiki te jilee suñu borom yërëm ko te xaree ko a fi teew si.